Direkt yapacağım. Aïcha Aïcha Aïcha, Association des anciens gloires de Sokone. L'association des anciennes gloires de Sokone organise une séance de lutte traditionnelle. Manemboki Mouiam, le 3, le 4, le 5 juin 2022. Sandangan Sokone, Manemboki Sénégal, Nyan ñoo ko organiser association des anciennes gloires de Sokone ñi nga de ne dañoo xam sport yàgg si lool ñu indi leen nag lutte sans frappe Mané amul gala un grand Galadelite d'élite Sénégal kan la ñu tuddee boobu le bés ki raw ay maasam ki am amul ministre des sports bu ko fi am si mim ki indi coupe d'Afrique si mim réew bés ba nag ñu le ministre Matarba est maire de Fatik. raw Gadou. 000. premier jour ba deuxième jour poids léger 350 Wow. Wow. poids lourd 1 million francs CFA Mané Mboki sa bopp boudé mbeur nga pile mise mosul am ci bir Sokone mbokku siin ak Saloum mbokku ñombaato akhlu lamb amateur yi la jeunesse association des anciens gouloirs de Sokone ñoo leen di wo ci goudi yu am solo yi mané mbokk tirage ba nak dinañ ko démarrer à partir de vingt h zéro minute ku teelu dugg lamb bi bindu do mëna jël un million bi do mëna jël trois cent mille bi do mëna jël cent cinquante mille yi teel a bindu teel kan mo koy animer nak Mbayang avec sa voix d'or la diva Mbayang mané kan mo koy tégg nak le tambour major international monsieur Mor Ngom mané lamb ji neex na ba paré bép information ak lépp lu ngeen bëgg a rek ci walu organisation ba ak Ousmane 77 570 57 04 mané le président Ablaye Sar, ak ñamu andal li leen ñor la population de Sokone li leen ñor nu Sokone développé li leen ñor lépp lu manké ci biir Sokone ñu duggal ci seen loxo du nga am nga doole kay woné sa bop ci bile événement le 3 le 4 le 5 man di jëm ak maa nga sa yoon ndax ñii nag ñoo ko yor